مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك tànk yi ñu fi ñëwoon tey tànku jàmm la moo doon du ñuy màggal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bisu juddoom loolu moo waraloon fan yi yëpp ñuy wër ci këru diine yi tey nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ngénte mooy la famille Kountiyu moo taxoon ñu ñëw won leen sunu taxawaay euh, ci seen ginnaaw ci seen kanam euh, ci li nga xam ne tey moom la ñuy célébrer fii ñaanal leen yàlla également ñaanlul sunu bopp. ñaanlul li nga xam ne moom lañ ñu dénk mais ñaanlul surtout aussi le président de la république parce que nit ki bu fekkente ni dafa jiite te ñu ni moom mooy président wu sénégalais yëpp moom moo yor développement Sénégal yëpp yëpp yëpp moom la ñu ko yaakaare moom mu yaakaar ko tamit ci nit ñi parce que bu nit ñi taxawul président du mun a taxaw loolu moo tax ñu kontaan ci li nga xam ni góor gi wax na ko tout à l'heure je crois que euh, yii ay moment de rassemblement la yoo nga xam ni nit ñi duñ cee war a wax luy jariñ askan wi wax ci loo nga xam ne dafay jariñ réew mi mais tamit ñuy sargalante te sargalante nag weesuwul nit ki defal la teraanga nga wax ko ils ont dit tout à nañu ko waxal président ni ko li mu leen defal gis nañu ko yëg nañu ko te fu ñu toll tamit nañu koy wax مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كن يا صل وسلم دائما أبدا على